jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bi

xam ne ni moom moo di am ndaje ngir waxtaane nan la ñuy def ba mën a trouver li nga xam ne ni moom moo di solution ngir mën a am li nga xam ne ni moom moo di saison wu 2021 bi ki nga xam ne ni moom moo di Modou Lo wax na ca Balla Gaye 2 wax na ca Gris Bordeaux wax na ca même ki nga xam ne ni moom moo di Boy Niang 2 wax na ca ba ci ki nga xam ne ni moom moo di Tapha Tine moom Tapha Tine la mu xam ne moo tax mooy ne dañoo war a respecté ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di mbër yi ndax boo demee fi nga xam ne ni moom moo di à l'étranger di Europe ñoom dañoo respecté ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di mbër yi nekk fi nga xam ne ni moom moo di ci Sénégal te dañoo respecté itam li nga xam ne ni moom moo di sunu espoir waaye ki nga xam ne ni moom moo di Boy Niang la mu xam ne moom moo di reprise de combat VIP sortant génn li nga wax li xam ne ni moom moo di seenub idée ngir ñu toxal li xam ne ni moom moo di lambo waaye bu ñu demee ba tey ci xëtum lamb ak koy defee saa su fay champion ñoo solo moo di Jackson Senior ak ki xam ne ni moom moo di Bébé Guène waaye bu ñu demee fi nga xam ne ni moo moo di Aziz Ndiaye ak ki xam ne ni moom moo di Balla Gaye ñi nga xam ne ne ñoom ñaar ñooñu ànd nañ dem foofee nga xam ne ni moo wa moo di ca situation boobu début de la de lutteurs vingt lutteurs yoo xam ne ni daañu leen former ki nga xam ne ni moom di Idrissa di ki nga xam ne ni moom di Cheikh Ahmadou di Double di ko ñaanal yàlla yëkkati ko waaye ba ci xëtum làmb ki nga xam ne ni moom di Modou Lô dafa bu baax a baax li nga xam ne ni moom di huis clos ki nga xam ne ni moom di Bombardier ba ki nga xam ne ni moom moo di Lac de Guiers nañ absence ci ndaje moom nga xam ne ñoom amaloon nañ ko waaye ki nga xam ne ni moom

di leen ñaanal tam ak jàmm ñëw ak jàmm waaye di ko wax ñeen ñi koy seetaan lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Baol TV du ne kenn bu ma waaye ku jooy dëpp la ko dalee Thiès Xombal Bambey altu ndangal mag sew kabaak laa ñaar kër daama kër saar càllundulaak pataar kër bi yaasin sàmme ngewel sàmbe kool dalak daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu si waat Kajoor ak Bawal Siin waaye li ma ci jaaxal mooy cim xel la nekk newul ci poos